c'est normal ah la décision du chef de l'État bi mu taxawee ne du nekk candidat c'est normal qu'il y ait des chamboulements dans le champ politique su nekkee politique la def que mu nekk au niveau de l'opposition que mu nekk au niveau de du pouvoir que mu nekk Benno que mu nekk opposition bu Sénégal opposition bu Sénégal du ma ci wax parce que ça ça ça ça me concerne pas ñoom ñoo xam ni defee seen ku jëlu guy mais au niveau du pouvoir ñun benn objectif la ñu am parce que dañu am appareil on a un appareil qui se nomme le Benno Bokk Yaakaar. Mhm. l'appareil qui se nomme le Benno Bokk Yaakaar ñun ce que nous voulons que nous avons comme objectif c'est de consolider cet appareil là et de renforcer cet appareil parce que xam nañ ne élection présidentielle du nit moo koy gagné. appareil boo xamante ni dafa présent dans les cinq cent et quelques communes bien organisé bien huilé depuis 2012 jusqu'à présent cet appareil remporte les élections en termes de suffrage. Mhm. donc ñun l'objectif que nous avons c'est de fexe ba appareil bi bu mu yëngu. parce que jàpp nañ ni sur le plan politique soo jiitalee nit te amoo appareil bu baax pour mu gagner day nekk problème. da ngeen ragal appareil bi tas benno non parce que l'objectif mooy président jël na décision day am lu ñu ku ci nekk nag beaucoup de gens dañuy génne seen i ambition ku nekk di taxaw. Mhm. mais puisque nous nous voulons comme ni li président wax nous nous voulons dañ li ñu bëgg mooy conserver le pouvoir sooy conserver le pouvoir la première chose à régler c'est de conserver parce que l'objectif c'est de la conservation du pouvoir continuer ce qu'on œuvre bi nga xam ne moom le président de la République commencé ñu terminer ko mais objectif boobu soo ko amee doo bëgg mu am ñu bokk ci yow di dem wala di beru parce que ku ci génn ci heure bi au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar tu seras perdant mais est-ce que Adama euh, nekkul handicap aujourd'hui parce mois élection yi balaa muy ñëw Benno Bokk Yaakaar amaguñ candidat si le Benno Bokk Yaakaar a Kalla. <laughs> le Benno Bokk Yaakaar a un candidat. c'est-à-dire les Sénégalais très pressés. empressement bi moo indi woon empressement Macky Sall dina samp ndëndam wala samp ndëndam parce que il faut mu wax ndax il est candidat du nekk candidat mu toog le moment venu il faut mu wax kan mooy candidat bi c'est pas important pour nous ce qui important pour nous mooy nañu fexe nu ñu téye suñu cadre parce que dañu war a dem parrainage oui mais ñun on a treize députés dañu war a dem parrainage oui mais on a 120 maires est-ce que soxla nañ loolu l'objectif c'est de consolider ce que nous avons qui est la l'appareil de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que bu ñu yàkkamti parce que suñu yàkkamtee objectif bi ñu am pour conserver la le le cas l'appareil du am loolu la coalition décision chef de l'État andi.